salaamaaleykum wa rahmatullah waa ñi ngi leen di sant bu baax yéen waa Salaami TV di leen gërëm ci seen taxawaay ak seen yitte joo xamante ne bii jox ngeen ko daara ji waaye jox ngeen ko bésub daara ji waaye jox ngeen ko ndongay daara ji ñu leen di gërëm bu baax a baax di leen sant waa daara ji nag comme niñ koy waxee daaray alquran la joo xamante ne bii nii sëriñ Ahmed Sakhir moo ko sos mi ngi ko sos 1939 ci ndigalul turandoom di sëriñam di sëriñ Ahmed Sakhir Mbay wala sëriñ Ahmed Kabir Mbay maam Cheikh Mbay moom mooy ki nga xamante ne bi moom moo ko fi yabal yabal ko fi ci bisub gàmm ne ko demal nga sanc daara ja ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla loolu mu nekkoon bisub gàmm bu ko defee daara ji di doxee ci doxin woowu di dox ci doxin woowu di dox ci doxin woowu ba nii ñuy waxee yow sëriñ Ahmed Sakhir nag mi ngi wax ne moom daara ji bi mu koy sos mi ngi ko sosoon ak benn donga waaye ci barke ak liggéey boo xamante ne bi suñu borom subhaanahu wa taala barkeel na ko tey daara mi ngi toll ci ñetti junniy ndonga ak juróom ñaat téeméer ak ñeent fukki ndonga ak ñaar ñooy li nga xamante ne bi ñoom ñoo fi nekk tey di jàng wa ngir yàlla googu nga xamante ne ci la ko kilifaam waxoon ne ko demal ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla daara ji ba tey ci ngir yàlla googu dong la daara ji di dox day continuer di dox ci ngir yàlla ba tax na njàng mi ak tëdd gi lekk gi lépp ngir yàlla la maanaam sëriñ bi fayee ko ci dara ku ñëw dan lay jàngal te yàlla tax daara ji noonu lay doxe di ni doxe di doxe ginnaaw boo xamante ne bii nag xale bi mokkal na alquran ndax sëñ Ahmed Sakhir Lo mission moo nekkoon xale bi na mokkal alquran waaye na jikkoy alquran nekk ci moom ba mu koy doxe di ko waxe di ko jëfe ba nekk koo xamante ne day jariñ boppam waaye day jariñ penc mi nga xamante ne bii ci la ne ba tax na xale bi bu mokkalee alquran ba pare dañuy fexe nag mu xam li nga xamante ne bii moo ne ca alquran ja loolu moo waral ñu def ko ay xaaj daara ji xale bi ñi ngi xalaat ne dina fi def ci njàngum alxuraan diggante ñeenti at bu ko fi defee yàlla mën naa def mu mokkal alquran donte ñeenti at yooyu nag léeg-léeg mu mat ko léeg-léeg mu yées ko léeg-léeg mu dollee ko waaye nag li ñu xool daal mooy lu ci ëpp daal boo fi defee ñeenti at di nga mokkal alquran ba pare am na meneen njàng nag moo xamante ne bi moom lay jàng muy day dugg ci école bu ñuy wax école franco arabe bi nga xamante ne bi moom moo fi nekk école franco arab bi nag am na cycle yëpp moo fi nekk ñetti cycle yi day def cycle élémentaire bi dina ko def ci ñeenti at bu ci jógee mu dem cycle moyen mu def ci li nga xamante ne bi mooy ñetti at su fa jógee mu def cycle secondaire bi ci ñetti at bu boobaa nag dafay génne ak ay diplôme diplôme yi mu fay génne mooy bu demee ba nga xamante ne jeexal na cycle élémentaire bi day def CFEE dina def boo xamante ne bu franco arabe bi la waaye dina def boo xamante ne bi bu français kese la yàlla mi ñu ciy defal sutura bu français boobu xale yi ñu ngi ciy bokk di ci am ay ndam waaye bu franco bi itam xale yi ñu ngi ciy bokk di ci am ay résultat ci ñaar yëpp ay 100 pour cent buñ ci jógee da ngay demet ci cycle moyen bi nga defaat BFEM français kese waaye nga def BFEM franco arabe ak BFEM classique boobu itam xale yi ñu ngi ciy am ay ndam ñu ngi ciy ay résultat niki noonu itam cycle secondaire bi noonu lay doxe kon daara ji loolu la ginnaaw loolu itam am na meneen njàng mu fi am moo xamante ne mook njàngum franco bi ñoo ànd muy li ñuy wax daaray majalis ginnaaw bu xale bi mokkalee alquran comme ni ko mag ñi daan defee bu njëkk nga xam ne xale bi dañ koy téye di ko jàngal téere xam-xam yi di ko jàngal ci làkku réewam xale bi itam dinañ ko defal loolu tëralal ko di ko jàngal téere xam-xam yi ci làkku réewam muy continuer di di jànge noonu kon façon njàng yooyu mooy loo xamante ne bii moom moo am ci moo am ci daara ji mbootaay gi nga xamante ne bii nag ñoom ñoo taxawal bis bi tey tey moo nekk seen ñeen fukkeelu yoon bi nga xamante ne bii bis bi mi ngi taxaw ak léegi mbootaay la goo xamante ne bii itam état bi daf ko reconnaître réew mi reconnaître ko mu mu am reconnaissance am di dox ci jàppale sëriñ bi waaye di jàppale li nga xamante ne bii moom mooy mooy ndongo yi kon yéen itam ñi ngi leen di sant bu baax ci yéen ñi nga xamante ne da ngeen a ñëw di siiwal liggéey bi di jàppale sëriñ bi ndax lii nga xamante ne moom lañ fiy liggéey képp koo xamante ne bii jàpp nga ci ak noo ci mën di jàppe rek yow kenn nga ci kër gi kenn nga ci liggéey ji ndax daara day daara joo xamante ne bii askan wi ñoo ko bokk jullit ñi ñooy ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo ko bokk kenn moomu ko ba tax na képp ku ñëw di jàpp ci liggéey bi nanga xam ne ci sa kër nga ne nanga xam ne ci sa daara nga nekk nanga nga xamante ne kenn nga ci daara ji ki fi ñëw démb ak ki fi ñëw tey ki jàpp démb ak ki jàpp tey ñoom ñëpp ñoo yem ci daara ji ndax daara ji ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn moomu ko kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di rafetlu seen taxawaay di leen ñaanal yéen itam na ngeen bokk ci ñi nga xamante ne bii dañ leen di dégg ci àdduna bi fu ngeen mën di dem yàlla mën na ko di ko dina ko def ndax xale yu ndaw yi fi nekk képp ku ñëw di jàpp ci seen mbir rek suñu borom subhaanahu wa taala du la seetaan kon waa daara jee ngi leen di gërëm sëriñ baa ngi leen di gërëm waaye association bi itam kilifa gi mi ngi leen di gërëm kon loolu mooy loo xamante ne moom lañ leen ci bëggoon a leeral wasalaamaaleykum wa rahmatullah